tey ñuy sant statistiques yi ñu am depuis altine parce que jàngalekat yi euh, ñoom ñëw nañu depuis booba te loolu lu am solo la ci ci njàng bi parce que bu fekkee école baa ngi fi matériel baa ngi fi bu jàngale bi kat bi nekkee fii élèves bu ñu ñëwee njàng bi mun na commencer may wane nag ren amoon na ay tiit tiit yu nga xam ne amoon nañ ko ndax gis nañ ne nawet bi dafa taw lu bari euh, am na école yu bari yi nga xam ne dañoo mbënd mi da leen laaloon am na école yu bari yi nga xam ne ñi mbënd mi laaloon dañ leen a yóbbu foofu ñu dëkk fa ñoom ak seen i njaboot euh, def nañu point bi depuis avec autorité yëpp mais depuis weer ñu ngi ciy liggéey mën naa wax ne tey fi ñu toll nii fi ñu toog nii école yëpp école ñi nekk ci région de Dakar yëpp parce que statistiques yi dina ñëw au fur et à mesure dinañ am ci région yëpp mais li am tey Dakar euh, mooy école yi fi nekk yëpp njàng mi commencé na fa amul benn école bu nga xam ne njàng commencé wu fa boo jëlee école yi ci privé bi ak public bi yëpp njàng commencé na ci public bi lañu am juróom-ñetti école ci dakaar yëpp yu nga xam ne ubbite bi commencé na mais am na ñuy gàllankoor ñu ngi mais yu ñi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ay gàllankoor yi nga xam ne ñun ñaa ngi ciy liggéey mais terewul ek jàngalekat yi ak élèves yi ak parents d'élèves yi ju nga ci et gouvernement bi mu ngi seen wet loolu bu ñu amee loolu mooy école boo jël téeméeri école yoo jël juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent yaag genn wàll amul problème téeméer yëpp nag njag mi commencé na donc tey mun nañu wax ne ubbite école bi jaar na ci yoon parce que xam nañ ne quand même ñu ngi jëm ci ci gàmmu jóge nañ ci nawet ñu ngi jëm ci gàmmu te gàmmu da day dafa mus a doon même année normal dafa mus a doon période bu nga xam ne école yi day am benn dysfonctionnement day am arrêt donc loolu ñu ciy félicité ñëpp di ci félicité ñi nga xam ne ñoo yore liggéey boobu nee naa nag président moom dafa wax naa li mu wax mais loolu li mu li ko waral mooy jàngalekat yi nañu nekk ci école yi defe naa wax naa fi que ne at bii ñu génn gouvernement du Sénégal ci ndigalu président de la République am na ay jéego yu rëy jéego yu rëy yu mu def ci li nga xam ne day tax euh, jàng jàngalekat yi gën a gis seen bopp ci système bi euh, am nay engagement yu nga xam ne ñu ngi wax ne nañ ko respecté gouvernement bi respecté na engagement am dina respecté engagement yi ñëw mais nañu xam ne négociation la woon Euh, négociation yi ñun suñu engagement nañ ko respecté jàpp naa ne tamit communauté éducative bi ñoom it seen i engagement nañ ko jafe engagement boobu nag mooy jox xale yi njàng mu nga xam ne mu de qualité la mucc ayib pour que sunu système continuer di bokk ci système yi yi nga xam ne yu ñu gën a ràññee ci àdduna bi loolu nag taxawaayu bis bu jot la taxawaayu bis bu jot la gouvernement bi gis na orientation yi ne war nañu renforcer la formation des formateurs gis nañu école yi war nañ ko war nañ ci gën a jàpp déjà ci ministère de l'éducation nationale am nañu benn programme bu nga xam ne dañuy réfectionner école yi euh, deux mille vingt deux amoon na lu bëri luñ ci def mais deux mille vingt trois bi président joxe nay instruction bi nga xam ne feeñ na ci budget beeg yëpp ne dañoo war a gën a taxaw ci wetu école yi defar leen. loolu engagement yu rëy la budget wu éducation nationale bokk na ci yi nga xam ne président moom la gën a bàyyi xel euh, donc euh, loolu ñu ne dinañ ci gën a taxaw dinañ ci gën a liggéey euh, déjà nee naa ba ma visité école bi ñu nekk fii ci école lycée d'application Seydou Nourou Tall nga xam ne nit ñi ci seen bopp Dakar yëpp ak Sénégal yëpp dañoo jàpp ne lycée d'excellence la même bu fekkee ne gouvernement bi jàppul ne lycée d'excellence la ma ne man euh, bu ma ñëwee lycée d'excellence yi gouvernement dina continuer di ko créer ci format yu mam am na yu bëri yu nga xam ne déjà ñu ngi leen tabax dinañ leen pare octobre li ñuy wax li nekk octobre 2023 dinañu commencer ci année de 2023 2024 mais lycée yu mel ni lycée d'application nga xam ne dafa am encadrement d'excellence di amay résultats yu excellent war nañ leen accompagner que ñoom excellence bi ñu nga xam ne day day lu nga xam ne euh, ñoom ñoo ku liggéeyal seen bopp même bu fekkee gouvernement bi am na lu mu ci def dinañ leen jàppale et bu ñu paree defar benn cahier de charge bu nga xam ne bu ñu ko remplir gouvernement bi def li mu war a def ñoom ñu def li ñu war a def ñëpp nag parce que damay woote euh, parents d'élèves yi euh, dinañ leen gën a impliqué ci waxtaan bi dinañ leen gën a impliqué. mais bu ñu amee yenn lycée yu mel nii ak lycée yëpp fu ñu am ci Sénégal taxawaay bi gën nañ ci dinañ ci war a gën a taxaw gouvernement baa ngi réfléchir ci dispositif bi ni ñuy yombale njàng mi teggi lu bëri ci kaw parents d'élèves yi xool ñu ngi ciy réfléchir ak ministère du commerce ci discussion yi tey école bi discussion yi pour euh, wàññ euh, yokk pouvoir d'achat sénégalais yi yokk wàññi cherté de la vie école daf ci am place bu rëy bu nga xam ne président dafa jox instruction ñu taxaw ci ci euh, droit d'inscription yi euh, ci njëgu kaye yi déjà man maa ngi réfléchir min président jox na ma instruction mu jaarale ko ci premier ministre que nañu réfléchir fii rapidement euh, naka la ñuy jàppale parents d'élèves yi ci ouverture des classes bi ci yenn dépenses yu ñu ce qui fait que benn programme bu nga xam ne ñu ngi xool ndax dañ koy jàppale ci ñu ngi koy jëmale ci jënd ay fourniture scolaire yu doy jënd tamit yenn école primaire yi yu nekk ci gox goxaan yi ñu xool naka lañ leen di renforcer ci cantines scolaires yi yooyu yëpp ay euh, mesures la yu nga xam ne fii ak at bi di jeex fii weer yi weer wi di jeex sax dinañ ci commencer lu bëri ci instruction président de la république